lu ma bëgg a wax. ey Samba ko def yaa taalibe borom daaru Grand Yoff nga dëkk malfaiteur bu ci ji sago dina ko linja ñaa doo sa ñaanu yaay sa ñaanu baay sa moom lii du tey démb la tey soog a ñëw mais samsuna bis bi ak ñaamu wa waaw bis bi dañuy déplacement rek ñu bëri nañ bés mag bu ne fiis dama lay xamal dara la jàmb rek da nga yëndu déggoo ma ne da nga yëndu mais yëndul seet boo yëndoon ni nga xam ne Dakar ñooy borom yow looy daan sax doo ko xam dama lay may 18 heures 18 heures laa lay Zarko ak perkal bi mu ngi laaj ay bitéelam de Zarko ngi waaye di gërëm sunu frère Makan Meng moom moo woote ndaysaan diggante Niang bu Ndaw ak Zarko ndaysaan Zarko mu ngi sotti waayam Yérim xoolal Zarko ndeysaan billaay Zarko ndeysaan Zarko bu yeboo làmb bàyyi ko xel de. mais ah kana seetaan rek. Ah. ñaan yàlla may ñu ndam may ñu ndam loolu de lañ bëgg. jërëjëf. ñaawu ndaw mu pare rek ne ko semaine yeeg jaase na lépp génn ñaawu ndaw sawu mbaam bi dalay tal. xadaaw bi day ñëw luñ la mooy fenn daas lépp fanaanal ñaawu ndaw yow laa waxal andil semaine yeeg jaase coxu beebi laa lay ni bu la fa fekkee rek dalay rey ak ci man jaaxo bi di ko fuuree. ganaayo dee di taw rek ah wuy ma bu mbër bi ayee ndongo yëppay rakkaaju nga ne bu mbër bi ayee ndongo yëppay rakkaaju dimanche jot ñu dem arène nationale jàpp dante sa gaañu eh. bak sëñ Bamba barki sëñ eh ñaabu ndaw allum paa bi foog nga ñëwee pour mun see dund soo ko ñëwewul da ngay dox di ngiroo ndax ay dayu paat ah. ñaabu ndaw man nga déggoo ma la wax teel yeew xanaa doo dégg loolu yeew waaw mais comme ni ma ko waxee rek mafia Grand Yoff la ay xale yi Grand Yoff lañ nangoo nañoo liggéey gëm nañ seen bopp mais lépp lépp lépp si ndàmb la parce que làmb euh, pour mu neex mais nag ñoo ngi gërëm sunu euh, sunu président ñoo ngi gërëm sunu président euh, tubaarkàlla maa ngi lay nuyu baax a baax Coumba Ndoffène Fall le premier magistrat de la commune de Diamaguène Sicap Mbao coordinateur Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu promoteur bu baax a baax maa ngi lay nuyu Makan Mbeng di ñaanal sa papa Gaston mu am wér am jàmm a ah, ñu doxantu yirim tuuti ñu xool leneen ñu xool. bi may ban mafia. Ruku Njaago. Ruku Njaago. Ruku Njaago ba dee. grand ba xëy dee. ñaamu ndaw amul luñ koy yóbbante xam nga luñ koy yóbbante mooy lan. slogan bu bees bi. ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo gën a féetee paa ñoom ñëpp gone buñ si méytuwul ñu nooxu fii grave la ànd mbooloo la doon benn. pimpi maa ngi lay. booy maa lay raw Fallou Leral TV gayen. ci loo ne. booy sant Serigne mais pimpi dofu cité bi. mais pourtant tey mën nañoo wax pimpi dofu dofu Zarko moom it. waaw barke Serigne ñoo bokkoon ndey baay ñu ànd si lépp yow muy wax ku toog si di wax bay jooy mais dañ ko def ñu desal dara kooku desalatuñu dara de. Zarko moom moo war toog bay wax si booy bi bay tuur xewal te musul toog si télé bay wax jooy kon xam nga ne Zarko jàmbaar la loolu la wax làmb ji lépp Siteu la waaw léegi lan lan waruñu ko seraan si dara gaan dañuy ànd ak moom lépp barki sëñ Bamba grand jaamu gën benn la ñi ngay gis ñëpp moo loolu boo yaayee nii yaa ne di gis yaa tout lépp njabootu Siteu ak Zarko la mais lan la ñuy xaar tey lan la ñuy xaar tey si pimpi ci diggante moom ak Zarko ñu jëm ci làmb joo xam ni Niang bu ndaw ak ko combat la mais Pimpi lan la ñuy xaar ci làmb jooju Pimpi. toxal ci stade bi ba nga gis ne buñ dugg si su ngay doo xam ne kon gars yi pare nañ buñ suñu dugg si yow kay ma loolu kam ma ko ko kenn attanu ko si àdduna ñun Zarko ñu ak moom si lépp. kon tey da ñëw day mel ne Pimpi dafa ñëw dooleel Grand Yoff. waaw nice man Grand Yoff maa fi une semaine une semaine maa ngi Grand Yoff kon xam ne man Grand Yoff laa dëkk. mais Pimpi fi waaw mais dara lii la moom la Zarko moo ko waral moo ko wax ci yan mi moo tax dañ koy war ne ko ñun gënuñu gore ah du ñu gën a gore ndax Zarko dara de. ñee bu ndaw am na lu mu waxoon ci combat la dëggee diggante moom ak Siteu yaakaar naa ne loolu weesu na mais lan ngay yóbbante ñaa bu ndaw. moom 2 millions la doon wax ne ko 8 millions yi fi. 10 millions yi fi 20 millions yi fi. ah ne mu xaar ñu si stade bi ba ñu dugg si. ñaata millions ngi fi barki mu ngi fi lépp a ngi fi. fii manqué wul dara a ah, gogo tawuñu dara. su bëggee barki sëñ. Eh, mafia pimpi. loolu ne bu bëggee naka ko wax ñaabu ndaw ñaabu ndaw tey ñu ree la. wala déggoo ma. waaw bu bees a ngi noonu. ñaabu ndaw ñi daan bëree tey la xam ne bii bokkul. waaw kii bandi géew barki alxuraan mais ñaabu ndaw indi nay mafia am de mafia mi ñëw nañ de. mafia mafia mafia ba bay daje. gars daw ñu yataa nu mu demee tampi. Eh, barki sëñ Touba yow fàllu la ratif kenn du yow xam nga ñun fu ñu juddoo fu ñuy yeewoo fa la raay bi mais ana Seck waaw la ñaa njoo ndeysaan démb si guddi sànqara ñu ngi dëggante kooku yàlla na ko yàlla defal jàmm sama cheikh la ñoo bokk ndey ak baay ni mu ngi New York léegi day woo appel vidéo nii mën a jar ko toog nii day wax booy tuur xewal we mën a ko xoolal foofu yow yaa ngi waaw ñu gérer fii barki alxuraanu karim yal min mi boobu ba léegi amagul combat gars yi lu ñuy xaar waaw mais ñoom ñoom ñoom ñoom yalmin bi waru leen de ñoom ñooy wër yalmin bi yalmin bi waru si kenn ndax li ma maam Sarafal defal na ko bay Balla mais Balla waroon na jël euh, sita yàlla def loolu antuwul mu dem jël Tapha ñoom déggoo lu ma la ñoom seen biir ñoom waxoon naa leen kanam bu mag bi booy bee koy tas te tas na ko bu yàgg barki alxuraanu. kon euh, Siteu mu day das clan bi ci kaw Zarko tas clan bu booy. maam Serafal ku si bëgg na lekk avance bi gars yi tawuñu si dara Fallou Leral TV pimpi ngay waxal de war na Serigne Ba mooy wax kenn du la wax yow ñoom xam nañ lépp bu forest bi bu bu waay bu tàng bi bu tàkkaloo bàyyi nii dañoo jàpp ne dañuy seetaan Zarko ñu ak moom ñoo bokk ndey ak baay dañuy ànd si lépp ba ci rond central bi ñu ak moom ñaaw ndaw dina dégg li ñu koy wax lu musul dégg dina ko dégg ñun si yata yóbbante bu ndaw loo may yóbbante ñaaw bu ndaw xool ko waaw dégg ko lu ma la ne moom laa koy wax ni nee naa ko boy ñu nga daan bëre ak tey baaxul say mbokk dañ la saakatoo xoolal bu baax si nga tuub baaxul. dëgg waaw ay mbokam dañ ko saakatoo dëgg ñun dañ si daw dara. ah nu mu demee nuyu père ji bi. maa ngi lay ziar ku baax mbaa yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant baax. père ji bëgg ñu waxtaan tuuti si làmb. ci làmb laa bëgg ñu waxtaan. da ngeen a jugee ci aada Fass jugee ci aada Fass duggaat Fass ñiy wax ngeen jugee ci euh, ngeen dugg ci bébé Diène Kaïré ngeen daan Diène Kaïré tey ngeen uti di Niang bu Ndaw tey seen bilan ak seen digganteeg Niang bu Ndaw nan ngeen préparé boobu combat parce que combat boobu ñëpp waxoon nañ bu ko Zarko jël. waaw non defaguñu bilan defaguñu bilan mooy dañu dem ba revoir des arènes doo ko def bilan lamb mais defaguñu bilan mais juste rek di mbër mu xale boo xam ne day entraîné am lu amul lamb di compétir ñi mu bëgg a bëreel bëriwul ak ñoom ñi bëgg a moom mu jël leen di bëreek ñoom loolu moo waral mu jël Niang bu Ndaw. waaye du palmarès du xaalis du dara lu leen boole booy bee bëgg moom Zarko ñi mu bëgg a bëreel bëree wuñoo moom. ñu bari ci biir Grand Yoff nangoon bañoon nañ ne sax Zarko warul bëre ak Niang bu ndaw. yow dégg ngeen ko. waaw ku lekk avance da ngay tëdd pom te moo avance dina ko bëree ñaa bu ndaw nawleem la xalalal mbër la nekk ci yoon comme ni ay moromam nekk ci yoon mu seppi mbër yëpp ne teg bët Zarko pour bëre moom Zarko jël ko. waaye bu demancé moo xam ne baakaan bi du xale kenn du moom. nga ne. bu demancé. Ah. moo xam ne kenn du baakaan bi. kenn du baakaan. barke yorente bi. mënoo ma tojoon ci baakaan. waa non bu bu ñu paree. boo ñëwee fii ci koñ bi naa la jox Omar jaay mi wala Mbaye Dabax mu tojaloo luy baakaan bi. Omar Ndiaye. Omar Ndiaye yaa ngi la xatu kii sa li mu wax rëy na de. non dafa def borom baax rek jubir dafa def borom baax rek looloo tax may wax loolu mais Zarko moom ñun gënuñu la ko xam ndax yow yàgg nga si lamb lool gënuñu la xam kan mooy Zarko. waaw loolu maa ngi lay delloo mais sa kaddu yi leen ñaabu ndaw yóbbante dégg ngeen ko. lu mu wax. dégg ngeen ko. waaw ñaabu ndaw day wax rek. kooku day wax rek. billaay day wax rek billaay. day wax day booy bi ñu ngemb ko def ci moom xaalis. ñu am war koo ëmb indi ko ngeen ne day wax. c'est que booy boobu noonu booy boobu noonu du ma fende comme lu ko Zarko di wax rek. di nga lu ko dalee 16h ba 18h. moom moom moom làmb ji foofu 18h ba 21h ñun ñoo moom yow loolu xam nga ko si ñun. ah mais booy dafa garaaw de. waaw kal boobu muy wax moom lañ koy daane si boppam. billaahi yàlla baax na yàlla nañu yàlla may ndam rek. jërëjëf. nay lan man la dof bu Zarko da ah, daa dof doo xool barki Serigne Touba yow yaa gën a dof ñëpp te gis nga gis nga mbër bi li mu andi. gis nga mbër bi li mu andi. bañ na ko ba bañ ko laajee posé ko question biir la wax lan mooy sa secret mu ne lan teel a yeewu. vidéo bii di nga tegalaat. bërëb dinañ ko jàpp dinañ ko duma dinañ ko daan wax bi muy def ñun aayu ñu si wax jouru combat bi buñ tëj arbitre bi tëjee barrière ku nekk di xam kuy sa papa sama diggante. gis nga xale yi jëlal ma Zarko moo ngi ci biir jëlal ma Zarko Yirim maa ngi lay. maa ngi lay siyaar. waaw Fadel ci loo maa ngi nii. naka réew. sat sëñ Touba. mais Fadel. ana sa waa ma nga kër ga di ne dallu ñuy waajal ñuy kan ngay laajte yow. fu ma la xamee. ah, ah. ma nga kër ga ñu ngi nii di waajal Côte d'Ivoire. dañuy dem. dañuy dem parce que euh, Sénégal ren ñuy jël jël. Bassirou lañ jël yu Wally ak Youssou Ndour kon sant yàlla. te Bassou ambianceur la ñi doon wax Bassou jëlaat nañ ko macha allah. yéen nga jëm Côte d'Ivoire. ñu ngi ah? fa le 6. koo dem ci jàmm waaw ñëwaat ci jàmm incha allah noonu la fa demee. xoolal Sarko. waaw yow eh Yirim. Sarko mii moom la. waaw parce que ni lañ la. jo boole la mais Zarko mi nag waaye mais koy sotti géwél am moo koy sotti ndeysaan Samba Samba suura borom du ko ba sande de ndeysaan Samba <laughs> ndeysaan waaye mais Zarko ngi nii Zarko li sol fu mu ko jëlee. ah est-ce que nekkul euh, fële. est-ce que du Gambie. wala Guinée Bissau. waaw waaw waa lii. waa mais Zarko. waa mais Zarko mi kii dof la de. dof. kii dof la de. dof dëgg góor yàlla dëgg. kii góor yàlla bataki gin gin gi jagin bataki nanda ta awra sagin waaw ndeysaan waa ndeysaan waa ndeysaan Zarko noonu ndeysaan Zarko mooy waajo tuus mbokk ndeysaan Zarko ndeysaan waaw waaw ba mën a teg siy bëri yëpp sunu borom defal leen jàmm mbokk yi tey ku ne xam ne ne Zarko la ñu seet doomi Grand Yoff bu bëree mu neex bu bàkkoo mu neex tey moom la ñu démb gis ngeen la ñaar bu ndaw wax ci ëppan presam dañuy bàyyi Zarko mu nuyu mbokki senegal mu nuyu mbokki àdduna mu nuyu diaspora bi alhamdulilah ange billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm sama maam bu baax a baax ajaratu mère Sall di gërëm sama maam ajaratu seen ndooy di nuyu fukki penc ak ñaari ci ndakaaru di nuyu Sénégal monde entier di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Zarko di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ñuy jàppale bu baax a baax a baax di bugg seetaanu ñu benn yoon comprendre nga di woo euh, lancer un appel solennel boo xamante ni c'est pour les autorités de Grand Yoff pour ñu xam ne ñun euh, li ñuy def rien que culture la ak cosaan xam nga yàlla def ñu ko nattoo mais yàlla mënoon nañu nattoo leneen ñu dem def ko kon donc ñoom ñëpp dañ leen ciy woo rek ñu ñëw jàpp ci bés bi ndax bés bi taaru rafet comprendre ga ñoom euh, président euh, Afa Laay président Idramé président comment dirais-je kii euh, comment il s'appelle Aline Badara Kébé ak Aline Badara président bu Daaru Salaam ñoom ñëpp dañ leen di woo ci combat bi parce que boo xoolee ba xool ñun ñoo coiffé football Grand Yoff ñun ñoo yore sportu Grand Yoff comprendre nga boo gisee Zarko buy dem open press di sol façon maillot bu nekk c'est parce que loolu mooy Grand Yoff te des na yeneen te xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo waa HLM Grand Yoff xam nga ñoom aussi ñu leen di félicité ci euh, finale coupe des maire bi ñu jël di jaaree foofu di wax mu jóob maire de Grand Yoff na ñëw jàpp ci bés bi taaral bés bi parce que bés bi du yëfu sarko kese. boo xoolee ni li ngay gis yow di nga xam ne lii nekkatul neen du Zarko kese. kon Grand Yoff la zone 7B de Grand Yoff la ñëpp ci war a ñëw jàpp. muy mujj eh, commençant par moom maire de Grand Yoff Khalifa Sall Boubacar Camara ah Angèle Fall ñoom euh, comment dire Cheikh baaxum ñoom madame ba jabaru Amadou Ba ñoom madame Ba aussi bu cité millionnaire ñoom ñëpp prési euh, président Ibra Gueye DG Carrière ñoom ñëpp dañu war a ñëw jàpp ci bés bi euh, aussi di sant bu baax a baax Lamine Thiam di di leen wax ni kontaan nañ ci nit ñuy jàppale di nuyu ñëpp daal euh, surtout écrit yi surtout écrit mbooloo ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di kontaan seen assistance ni ñuy taxawee staff bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci ñoom di nuyu aussi euh, président bi muy Aline Badara Kebe di kontaan bu baax a baax ci ñoom di ñaanal Issa grand Issa Dia Issa Dieng fi mu tëdd yàlla na fa jóg xam nga demaat bay doxee activité am uufaat njabootam di ko ko wax pour Grand Yoff yëpp di jaale aussi tamit Cheikhou Kouyaté doomu Grand Yoff la ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko massawu bu baax a baax di ko tàllal loxo nag pour bés bi mu ñëw jàpp ci di ci woowaat encore une fois euh, Formose Mendy mu ñëw jàpp ci bés bi comprendre nga euh, mussa Moussa Koné ñu ngi koy xaar ci bés bi aussi mu ñëw jàpp ci di di woo Tata aussi mu ñëw jàpp ci match bi képp koo xamante ka xamante ni Grand nga dëkk rek doomu Grand Yoff nga ñu ngi lay tàllal loxo waykat yeeg fecckat yeeg ñëpp duub di diib diib dundu gis ñu ngi koy xaar aussi tamit ci bés bi bu baax a baax grand fa koy xaar kon donc du sarko kese di jaale aussi tamit xam euh, Waly Seck mhm. di ko masaw euh, waajuram bi génne àddina malgré gisante wuñu mhm. te sama waay sama xarit la ñu ngi koy jaale di ko masaw bu baax a baax moom góor gu la quoi mhm, moom loolu da ak philosophe di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu ñi nga xamante ni nag ñooy ñoo yore entourage yu Zarko staff bi ñoom Jibi sàmb Aada Baaxum Issa Issa Sey Issa bu Mimi ah, ñoom Seck Pape Seck ah, ñoom ñëpp ñoom ab Ablaye Ndiaye Ibou Guèye Dieyli ah, ñoom Lamine sama grand frère ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal képp koo xamante ni da nga bokk ak rek nekk nekk ak moom surtout sama famille papa aussi maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di ko teg ci loxo Saer di ko pour mu pour mu nuyul ma leen ñoom ñëpp sama papa yëpp ak sama frère yëpp maa leen di nuyu di leen xamal ni xam nga ñu ngi waajal bés la kat ñu ngi leen ciy woo ñoom ñëpp ñu kenn. képp koo xamante ni sentir nga pour euh, dooleel Zarko mu dem jëlelil grand roi des arènes indil ko tegal ko rek ñu ngi koy tàllal loxo di leen xaar di leen nuyu yéen aussi les autres euh, euh, caméramans yi journalistes yi di leen masawu lépp loo xamante ni xam jot na fi jaar mm-hmm. nga xam ni seen liggéey moo demee noonu da koy nangu ak philosophe xam ni yéen a bëgg dara mm-hmm. comme ni mbër bi bëggee dara comme ni ñoom aussi tamit bëggee seen mbër dem ci kanam donc da ngeen di comprendre rek xam nga après ngeen liggéey liggéey bu rafet di masaw bu baax a baax ñi nga xamante ne xam nga gaañu nañ ci ci yoon bi booy yore moto yi di gaañu ci yoon bi ñu ngi leen di masaw ñoom ñëpp yéen aussi euh, euh, nu mu tuddati caméraman yi ñu ngi leen ñu ngi kontaan ci yéen sama tëggkat yi ñoom Samba Suuna ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ñoom fan si club bi muy bi nga xamante ni bàyyi gi la moo koy jiite ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ñoom di leen félicité di leen wax ni nañ gën a jàpp rek fi ñu jëm sori na trop. te bu neexee yàlla nañ fa egg. Zarko Zarko Zarko Zarko nuyu nga ñëpp waaye Zarko. bu ñu duggee ci waxtaan bi Zarko gars yi ñu ñëw nuyu nga ñëpp nuyu nga senegal gépp mais Zarko dañoo gis ne mbooloo mi dafa gën a yokk. waaw te day gën mafia bi dafa gën a yokk Zarko lan la sax te day gën a yokk dañuy liggéey rek. am na moom ay wax moom mënuñu ko. man fi mu nekk nii li ma teg fii du du du ñaaw bu ndaw comme ni nga ko waxee ñaa gixiñ gannaaw si moo dox suñu diggante ñu waroon wax yëpp wax na nañu ko kon donc moom li nga xamante ni moo war sama diggante moom moom xam na man xam naa man daal li ma koy wax mooy lu coow li di bëri bëri moom na ñëw ak jàmm rek moom na yàlla na ñëw ak wér ak wérle dara bañ a manqué ci moom man it ma ñëw kasaalika dara manqué ci man comprendre nga naa dégg prib rek prib ah prix boo déggee prix boobu. laay lay lay ñu ne la am nga droit dóor ñaabu ndaw. waaye yow tamit di nga tardé loolu <laughs> man ma am droit dóor ñaabu ndaw. ñu war ma fay pour ma dóor ko. non yow da ngay laajte xanaa <laughs> <laughs> lool. lool bi combat bi taxaw bu léegi nangu ma lekk. lu tax. fa ma jëm la. fa ma mais nee yee man du ma favori de du dara man daal as ndongo laa rek di tar tarbi rek sarax ndongo rek wala mu tibb ak dooleem waaw képp dong du ma favori ji leen man daal xam lu may ñaan doon favori hmm. kër Thierno Borom Daaru doon fa favori <laughs> mais yéen ñaar ñeena bokk Thierno Borom Daaru waaw ñoo ko bok mais njiitam laa ñii day toog ci suuf rek man ma toog ci kaw <laughs> jëwrinam <laughs> laa ah. maay jëwrinam ci maa ngi jël Zarko ñu ngi lay nuyu di la ziar. di la jox te gis nañ ni yaa ngi ñuy soo wax si ñaaw mooy foog nga wax ci parce que combat bi yéen ñaar ko seen. Mhm. te la kat ñëw na pare benn bis moo dox seen diggante dëgg la. Mhm. mais ñaa nekk na xale boo xamante ni dafa def ay preuve ba jël la. Mhm. keroog moo ñëwee fii sa kër am na boo wax say supporter ne combat bi waroo ko woon jël. mais ñaa dafa def ay preuve nga jël ko kon tey taay bu mu am. bëri nga ak Ada Fass bëri nga kon mu juddoo ba léegi dama am combat fi ma jaar rek dëgg garaaf rek combat la kon combat dama ci yàgg du eh, man sama moroom yi ñii bi ñuy jàngi métier ñii jàngi football ñii man dañ ma dama leen man xeex laa jàngi kon man suñ ma fayee pour ma dóor nit see avec plaisir te ñaa bu ndaw toll nu ma jaaxal am telling you bro toll nu ma jaaxal moom nee na Bour moo gën a moo la gën a dërkis def avec la manière. mën na waa dëgër de. mën na waa dëgër. ay Zarko yaa dëgër mën na ma wow de. ñaam na xew de. am na xew si bu rëy sax. dama koy géem par force mu ci dara. mais Zarko est-ce que xeeboo booy bi. xeeb non man sama doom sax du ma ko xeeb. man du ma xeeb doomu aadama. non non jamais. du ma sa doom boo koy dóor sax doo ko xeeb. xabaax kenn ku nekk sa tur sa sant di nuyu promoteur bi Makan di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm waaye di ñaanal baayam Père Gaston sunu borom defal ko jàmm journée bii nga xam si ni Makan tëgg na ko eh, di ñaan sunu borom def si jàmm mu réussir total di ñaanal mbëri si bëri yëpp sunu borom defal leen jàmm mbokk yi tey ku ne xam ne ne Zarko la ñu seet si doomi Grand Yoff bu bëree mu neex bu bàkkoo mu neex tey moom la seeti démb gis ngeen la ñaa bu ndaw wax ci open press am dañuy bàyyi Zarko mu nuyu mbokki Sénégal mu nuyu mbokki àdduna mu nuyu diaspora bi alhamdulilah ange billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm sama maam bu baax a baax ah, ajaratu mère Sall di gërëm sama maam ajaratu seen doy di nuyu fukki penc ak ñaari ci ndakaaru di nuyu Sénégal monde entier di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Zarko di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax di bugg seetaanu ñu benn yoon comprendre nga di woo euh, lancer un appel solennel boo xamante ni c'est pour les autorités de Grand Yoff pour ñu xam ni ñun euh, li ñuy def rien que culture la ak cosaan xam nga yàlla daf ñu ko nattoo mais yàlla mënoon nañu nattoo leneen ñu dem def ko kon donc ñoom ñëpp dañ leen ciy woo rek ñu ñëw jàpp ci bés bi ndax bés bi taaru rafet comprendre nga ñoom euh, président euh, Afa Laay président Idramé président comment dirais-je kii euh, comment il s'appelle Aline Badara Kébé ak Aline Badara président bu Daaru Salaam ñoom ñëpp dañ leen di woo ci combat bi parce que boo xoolee ba xool ñun ñoo coiffé football Grand Yoff mhm. ñun ñoo yore sportu Grand Yoff comprendre nga boo gisee Zarko buy dem open press di sol façon maillot bu nekk mhm. c'est parce que loolu mooy Grand Yoff te des na yeneen te xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo waa HLM Grand Yoff xam nga ñoom aussi ñu leen di félicité ci euh, finale coupe des maire bi ñu jël di jaaree foofu di wax mu jóob maire de Grand Yoff na ñëw jàpp ci bés bi taaral bés bi parce que bés bi du yëfu sarko kese. boo xoolee li ngay gis yow di nga xam ne lii nekkatul neen du sarko kese. kon Grand Yoff la zone 7B de Grand Yoff la ñëpp ci war a ñëw jàpp. muy mujj eh, commençant par moom maire de Grand Yoff Khalifa Sall Boubacar Camara ah Angèle Fall ñoom euh, comment dirais Cheikh baaxum ñoom madame Biliba jabaru Amadou Ba ñoom madame Ba aussi bu cité millionnaire ñoom ñëpp président euh, président Ibra Gueye DG Carrière. ñoom ñëpp dañu war a ñëw jàpp ci bés bi euh, aussi di sant bu baax a baax Lamine Thiam di di leen wax ni kontaan nañ ci nit ñuy jàppale di nuyu ñëpp daal euh, surtout écrit yi surtout écrit Grand Yoff mbooloo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan seen assistance ni ñuy taxawee staff bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ci ñoom di nuyu aussi euh, président bi muy Aline Badara Kebe di kontaan bu baax a baax ci ñoom di ñaanal Issa grand Issa Dia Issa Dieng fi mu tëdd yàlla na fa jóg xam nga demaat bay doxee activité am uufaat njabootam di ko ko wax pour Grand Yoff yëpp di jaale aussi tamit Cheikhou Kouyaté doomu Grand Yoff la ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko massawu bu baax a baax di ko tàllal loxo nag pour bés bi mu ñëw jàpp ci di ci woowaat encore une fois euh, Formose Mendy mu ñëw jàpp ci bés bi comprendre nga euh, Moussa Moussa Koné ñu ngi koy xaar ci bés bi aussi mu ñëw jàpp ci di di woo taataa aussi mu ñëw jàpp ci match bi képp koo xamante ni ka xamante ni Grand nga dëkk rek doomu Grand nga ñu ngi lay tàllal loxo waykat yeeg fecckat yeeg ñëpp duub di diib diib dund gis ñu ngi koy xaar aussi tamit ci bés bi bu baax a baax grand fa koy xaar kon donc du sarko kese di jaale aussi tamit xam euh, Wally Seck mhm. di ko masaw euh, waajuram bi génne àddina malgré gisante wuñu mhm. te sama waay sama xarit la ñu ngi koy jaale di ko bu baax a baax moom góor gu la quoi mhm, moom loolu da koy accepté ak philosophe di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu ñi nga xamante ni nag ñooy ñoo yore entourage yu Zarko staff bi ñoom Jibi sàmb Ada Bakhoum euh, Issa Issa Sey Issa bu Mimi ñoom Seck Pape Seck ñoom ñëpp ñoom ab Ablaye Ndiaye Ibou Guèye Dieyli ñoom Lamine sama grand frère ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal képp koo xamante ni da nga bokk ak Zarko rek nekk nekk ak moom surtout sama famille papa aussi maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di ko teg ci loxo Saer di ko pour mu pour mu nuyul ma leen ñoom ñëpp sama papa yëpp ak sama frère yëpp maa leen di nuyu di leen xamal ni xam nga ñu ngi waajal bés la kat ñu ngi leen ciy wow ñoom ñëpp ñu kenn. képp koo xamante ni sentir nga pour euh, dooleel Zarko mu dem jëlelil grand roi des indil ko tegal ko rek ñu ngi koy tàllal loxo di leen xaar di leen nuyu yéen aussi les autres euh, euh, caméramans yi journalistes yi di leen masawu lépp loo xamante ni xam jot na fi jaar nga xam ni seen liggéey moo demee noonu da koy nangu ak philosophe xam ne yéen a bëgg dara comme ni mbër bi bëggee dara comme ni ñoom aussi tamit bëggee seen mbër dem ci kanam donc da ngeen di comprendre rek xam nga après ngeen liggéey liggéey bu rafet di masaw bu baax a baax ñi xamante ni xam nga gaañu nañ ci ci yoon bi booy yore moto yi di gaañu ci yoon bi ñu ngi leen di masaw ñoom ñëpp yéen aussi euh, euh, nu mu tuddati caméraman yi ñu ngi leen ñu ngi kontaan ci yéen sama tëggkat yi ñoom Samba Suuna ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ñoom fans club bi muy bi nga xamante ni Baye Guèye moo koy jiite ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ñoom di leen félicité di leen wax ni nañ gën a jàpp rek fi ñu jëm sori na trop. te bu neexee yàlla nañ fa egg. Zarko Zarko Zarko Zarko nuyu nga ñëpp waaye Zarko. bu ñu duggee ci waxtaan bi Zarko gars yi ñu ñëw nuyu nga ñëpp nuyu nga senegal gi mais Zarko dañoo gis ne mbooloo mi dafa gën a yokk. waaw te day mafia bi dafa gën a yokk Zarko lan sax te day gën a yokk dañuy liggéey rek. am na moom ay wax moom mënuñu ko. man fi mu nekk nii li ma teg fii du du du ñaa bu ndaw comme ni nga ko waxee ñaa gi gannaaw si moo def dox suñu diggante ñu waroon wax yëpp wax na nañu ko kon donc moom li nga xamante ni moo war sama diggante moom moom xam na man xam naa man daal li ma koy wax mooy lu coow li di bëri bëri moom na ñëw ak jàmm rek moom na yàlla na ñëw ak wér ak wérle dara bañ a manqué ci moom man ma ñëw kasaalika dara manqué ci man comprendre nga naa dégg prib rek prib ah prix boo déggee prix boobu. laay lay lay ñu ne la am nga droit dóor ñaabu ndaw. waaye yow tamit di nga tardé loolu <laughs> man ma am droit dóor ñaabu ndaw. ñu war ma fay pour ma dóor ko. non yow da ngay laajte <laughs> xanaa <laughs> lool. lool bi combat bi taxaw ba léegi nangu ma lekk. lu tax. fa ma jëm la. fa ma jëm la mais nee yee man du ma favori de. du dara man daal as ndongo laa rek di tar tarbiyu rek sarax ndongo rek wala mu tibb ak dooleem. waaw képp donc du ma favori ci leen man daal xam lu may ñaan doon favori. Hmm. kër Thierno Borom Daaru doon fa favori. mais yéen ñaar ñeena bokk Thierno Borom Daaru. <laughs> waaw ñoo ko bokk mais njiitam laa ñii day toog ci suuf rek man ma toog ci kaw. jëwriñ <laughs> jëwriñ bi <laughs> jëwriñam laa ah. maay si ñëw leen ci làmb ji mooy jëw Zarko ñu ngi lay nuyu di la mm. te gis nañ ni yaa ngi ñuy doo wax si ñaaw na mooy foog nga wax ci parce que combat bi yéen ñaar ko seen mm-hmm. eh, te la kat ñoo doon pare benn bis moo dox seen diggante dëgg la mm-hmm. mais ñaa nekk na xale boo xamante ni dafa def ay preuve ba jël la mm-hmm. keroog moo ñëwee fii sa kër am na boo wax say supporter ne combat bi waroo ko woon jël mais ñaa dafa def ay preuve nga jël ko kon tey taay bu mu am bëri nga ak Ada Fass bëri nga ak Mbaye Gouy Gui bëri nga ak mu juddoo ba léegi dama am combat fi ma jaar rek dëgg Grand rek combat la kon combat dama ci yàgg du man sama moroom yi ñii bi ñuy jàngi métier ñii jàngi football ñii man dañ ma dama leen man xeex laa jàngi kon man suñ ma fayee pour ma dóor nit c'est avec plaisir te ñaabu ndaw toll nu ma jaaxal am telling you bro toll nu ma jaaxal moom nee buur Bour moo gën a moo la gën a dërkis Patin <laughs> avec la damaa dëgër de. man damaa dëgër. ay Zarko yaa dëgër man dama wow de. ñaam am na xew de. am na xew si bu rëy sax. dama koy géem par force mu ci dara. mais Zarko est-ce que xeeboo booy bi. xeeb non man sama sax du ma ko xeeb. man du ma xeeb doomu aadama. non non jamais. du ma xeeb sportif. sa doom boo koy dóor sax doo ko xeeb. mais damaa ma ne ko ko loo koy ñaanal mu ne ma ke xam nga lu may ragal xam nga lu may ragal arbitre sifflé mu dem taxaw ginnaaw entraîneur am naan ko demal. <laughs> ñaa loolu rek laa ragal. non yow déggoo yow déggoo lu mu la wax déggoo lu mu la wax de man yow yow tamit man du mënuma ay wax. man sama wax yëpp xuloo la après ñu xeex. Ah? man su ma lay wax dama lay xuloo pour ñu xeex man ay wax yu neexal yi nii. non man du ma ko def góor. non non waxuma la ak ñu war a signé nii eh, contrat pour nga war ma dóor ma naaj ma dóor la nga naaj man ça me fait plaisir quoi. mais keroog non moom ñaa bu ndaw keroog mu jël euh, jënga kàddu yam fa yëkkati mm-hmm. comme mu ne bii passé ba mu amee sa sa fii ñëw na ba fii bii fii fan mu ne ba mu amee sa fii waaw non ngay wax da ngay wax lu leer quoi ba fan fan da wax exact lieu bi mu amoon bu ne fii voilà ba mu amee deux deux fan la nekk ne jugi na deux es fu mu deux nekk xaar ma ñëw mu ngi nekk yara voilà da nga naan bi mu amee deux es yara pas grand yëf waaw ma ñëw yee ñëw na ànd ak ay mafia am jaar Birame dem signature yi. Hmm. départ jël autoroute nationale dem ñibbi këram. lan moo tax keroog yow sañoo ñëw fekk ko fi euh, mooy Batara nga ñëw signature yi. xam moom vol la jël bi ñu jaar gannaaw ñun amaguñu avion jëlee vol moom mënuñ kaa bañ ñu ko gis mais waaw mais loolu yëpp détail day neexa rek mais euh, man li ma lay wax signature boobu dafa fekkoon ma nekk ci yoon di daw lu bëri nag ak oto bi pour egg si mënuma egg si yéex a egg si xam nga woo woo promoteur bi jéggalu ko bu baax a baax tardé moo tax mais xam nga ni Zarko bu bañ bu demul signature am na lu ko metti lool yàlla seede na loolu ak ay nitam mais fi ma nekkoon ci boppam moo sori yaa ngi comprendre loolu kese kese kese moo ñu empêché di masaw euh, promoteur bi di ko jéggalu bu baax a baax encore une fois makan moom xam nga di ko ñaanal Père Gaston euh, na dem ak tan ak jàmm ba dellu si waat si ay activité combat bi moo la dépassé waat kese dépassé non non coow mu xam naa moom mu dépassé li mu yàgg li mu yàgg nii yàggaay bi moo ma dépassé ah non man xaw ma lu yàgg déggoo man la ma xeex kaay xeex moo ma gënoon kaay lekk li mu yàgg nii moom ma moo ma sonal moo ma dafa dem ba soof ma wax ju bari dañu war a xeex xeex bi mu jeex dañ ko laaj mu ne géejuwaay Zarko mosu fi am victoire fi bëri na fi fi seen bëri guy gi mu lim lim ay combat mu ne mu ne mu ne faa daanu géej géej waaye la ma ko daan bëri na. kan maam Balla. ak eh, Boy Niang numéro 2. Eh, sama premier combat wa ñoom ñoo ma jox victoire. sama première sortie bi Ama Baldé di bëreeg eh, kii non Baye si. dañ ko laaj toujours bi ne ko sa diggante ak lan moo lan ci xaar. moom mu ne xooluma. Ah, waaw mais ah, xanaa kon day fekk bu ma jëlee ba waa ci lay doon <laughs> ndax xam naa ne moom moom mu yéen dama leen yéen yéen yéen eh, dimanche vingt heures vingt et une heures fii ngeen di njëkkante. voilà pour wax ji bañ a bari rek yéen bu neexee yàlla fii ngeen di njëkkante. voilà. mais Zal attention euh, gis da nga jël combat à la légère quoi da nga jàpp da ngay ñëw jàpp ñaabu ñaabu ñëw daan ko. mais est-ce xam nga combat boobu du combat boo xamante ne war ngeen ngeen dem ardo ñëwaat xaar nañ ko ci. Eh, ardo bi ne prix day daanu. moom nga teg ko fa yow ñaar ci bëre ci bëre bëre xeex. xeex waaw ok. Eh, arbitre bu ne prix moom day daanu xanaa kay mu bañ a taxaw. da joxe da ngay joxe temps wala. man du ma joxe temps man bu buggee ñu bëri <laughs> cent vingt minutes coono ji man on est Et le physique la là la mental la moom ñun pare nañu quoi. moom lu mu bëgg ñu bëri rek ñu bëri loolu. me mais dama dégg ñu ne bu di dama dégg seen biir wax ñu ne bu 18 heures xasee jot jëm kaw. buy lëndëm buy lëndëm. li muy gën a lëndëm. xanaa xamoo lu mu lëndëm lëndëm si la mbaam di gën a gis ah? mbaam guddi rek lay dox mbaam men mbaam xuux guddi rek lay dox lu mu lëndëm lëndëm na <laughs> lëndëm rek <laughs> ah déggoo rek bi ma <laughs> su yàlla maye ba mais li nga xamante ni moom la nit ñi umpale mhm. man wuruma fu may làmb di yóbbu man na ñëw fii pour teral ay copains teral yaay teral waajur ñun amatuñu lenn rek lañ soxla muy fexe ba bëri combat royal. combat royal moom bis bu ko bëree bu neexee yàlla dinañ indil grand F waa grand F dra eh, combat royal eh, chaise bi incha allah mais eh, derrière loolu non ñun suñu objectif mooy bëri rek. compétiteur ñun dañuy compétir rek. waaw yee. Zarko bi combat bi taxawee ba mu des euh, un mois. Mm. ban combat. ban combat ban ak kii booy eh, kii booy ñaabu ndaw ñaabu ndaw moo koy jël boobu maa ngi ñaabu ndaw bu ñu ko hmm. jël jëluma beneen combat waaw ayca ñuy wax nii rek Modou Anta Zarko maa lay baax di la ziar ñooy fay waaw <laughs> ah. <laughs> dañu gis ñaabu ndaw wàññeeku ci mm-hmm. nga wàññee ci combat mm-hmm. ngeen am problème préparation lan ngeen bëgg a wane gis combat bi ngeen ci jeex <laughs> ñoom xam nañ ne athlète lañ yore. xam nañ ñoom ñoo la gën a xam ne athlète la ñuy bëreel. Euh, ñoom xam nañ ki ñuy bëreel. te man xam naa leen baax a baax. Mm-hmm. Eh. man xam naa li ma préparé pour ñaar te yor nañu loolu. Mhm. ñoom xam nañu bu baax dofuñu dina jàpp leen. Eh. ok man man moom wax dëgg yàlla pour man la vie tout est risque. Mhm. man dama jàpp ne moom àdduna yëpp lépp lépp risque la te xam nga dama mel ni philosophe bu naan celui qui ne risque rien n'aura rien dans la vie. Mhm. donc ñun dañuy teg jeexal rek ñun saa yow Lamine eh, man buñ ma fay nag yow sax ma jël la. Ah? mu ronda mu fayoon nag yow sax mu jël la yee parce que boo xoolee euh, suñu moroom yi bëri na ci ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ëpp ay defet mais yàlla euh, maanaam mun nañu seen wërsëg ci ci ci ci làmb amuñu loolu ñun mm-hmm. te ñun teg nañ foofu suñu bët moo tax xaaruñu kenn yee xam boo toogee tamit xaaroo kenn ku la jàppale ah, nga mu leer na ni yow lii moo lay may kon donc doo xaar nit ñun xaaruñ mbindeef lenn rek mooy suñu mooy mooy suñu déglu mooy suñu staf ñu wax nañu combat fay nañu lu ko jar ma ne leen jël leen punto pilota nooy te ne naaraka seerti yow amuñu leneen ñun combat bu ñu jox bu ñu jox bu ñu inter bu bu ci staff bi nangoo ñun dañ koy jël parce que dañuy liggéey yee man du ma mbër boo xamante ni damay dama ñëw pour bëri benn combat dans la saison wala ñaar wala ñetti non man mun naa bëri cent trente komba benn saison man na nit ñi bëgg rek ak promoteur bi ak sama staff jeex na quoi ok lan nga yaakaar promoteurs yi di xëccoo Zarko <laughs> parce que instant nii gis naa quatre promoteurs yoo xamante ne nii am na fu ñuy ah yow léegi yow yow léegi yow kon nag may yërnu. maa doog a doon jàmpe. yow nag may yërnu léegi. yow léegi nag may catal quoi yow. <laughs> Mourou ànd yow a doon jàmpe <laughs> laa defee la def ko ji. loo yaakaar ne lan la. non mais du dara parce que promoteurs yi ay liggéeykat lañu. surtout dañuy liggéey journalistes dañuy liggéey. Mhm. xam nañu Zarko liggéeykat la day liggéey. ñëwul fii pour caaxaanu ñàkk fayda yi mbëri ñu naan la kaay bëreet kii nga naan non du ma bëreeg moom dama ko kii ak dama ko kaa te boo demee seen kër man la su maay baraag la nga dem di xaar lan ngay xaar lan ngay xaar di entraîner pendant plus de années ñu ñëw wax la combat ne la diw bii nga ni man maa ko raw damay xaar tu attends quoi mon gars vas-y dama nga xeexi bu dee góor nga saa ay góor yombul de waxuma laa góor gu dëgër nag saa ay am nga xew de ah. waaye dafa dëgër de te dafa pare de mais ça yow ba arbitre bi sa am lépp nga jox sa kaw man góor dox sama kaw ah eh, tamit borom daaru seen loolu non non non yow foofu amul dóor hmm. foofu amul dóor non foofu amul dóor foofu ay caméra fa am non du ko def man maa koy def ñaabu ndaw yow wallaay azim du ko def man maa koy def ah nee na ah, du yéen a ngi foofu ah, moom li mu wax yëpp ak man li may wax yëpp fexe leen ba après image yi ngeen ko moon nee na soxlawul conseil ci waaw <laughs> waxuma la ku ñu mës a conseillé. oh maa ngi lay siyaar maa ngi nii man la sëtu Oulayum de. bilaay walaay. dama la jël nga ne jën keere pataas mu waral loolu nga waxoon n'est-ce pas. Euh. dem ñu laaj booy bi. ñu euh. ko laajee ñu man damaa njool. njool waaw. ak man bu ñu ne jàppante na ak góor ma dama ni la guy lu mu rëy rëy mënul mat guy lu mu rëy rëy mënul mat mais ma de déggoo ma de du jihaat oh. jihaat du ko def non lu waa seer di ko def si kooku ba arbitre sifflé xel lay jéem a teg te bu ñëwee fii fekk ku ko gën a muus fuuf. macha allah sama deuxième hmm. question mooy. combat bi combat bi gis nañ ne woon na coow parce que combat bi bi koy jël bi nga jëlee combat bi. combat bi bi nga ko jëlee am na coow. Hmm. li tax am na coow mooy da nga jël jën kayre daan ko. Hmm. ñëw taxaw ñu ne Zarko est que waroon na jël ñaari avancé parce que instant bi nii bu jëlu woon jaabu ndaw. mën na bëri ak Lac de Guiers numéro 2. nga ñëw daan jéen kay rek coow lu bari day delloo avance bi du ko delloo ñu dem régulariser combat bi CNG nga mujj ko bëri combat bi est-ce du risque ci bu la ñaaxu ndaw daanee mais ma daan nag dama dul daan daan boobu ngay teg fële da nga naan boo ko daanee ndax di nga jël lat ah voilà mais du ma daan. jërëjëf ñëwal amet ñëwal ñëwal ñëwal. Ah, fi gars yi waaw tëjee ci fi gars ñëwul laay ñëw wàllu musique. dama gis bi tey nga favoriser musique loolu dem sax ba ut koo xam ne après itam yaa ngi yaa ngi jaabante Gambie saa boo amee combat mel ni Gambie gi ngay dem itam neen neen yóbbu ko yaakaar yee da nga may yërndu yow tamit da nga may catal quoi waaw mais yow kooku xam nga loolu du suñu suñu suñu mbir xam nga mbiru waa ji toog la Pape Seck comprendre nga ñun ñun dañuy ñëw rek nañu del xam man xam lan mooy sama problème dem entraîné xëy yeewu teel teel teel yeewu damay teel a yeewu eh man damay teel a yeew man fu fu góori bonko borom jabar ñu teg leen tànk ñuy bañ a jóg man damay fipp buux madam ne ko maa ngi dem géej yee man damay teel a yeew entraîné ba léegi yee te booy yëpp da ngay laaj Pape Birame Ndiaye heure bi may yeew man di entraîné yee damay nekk géej di entraîné yi entraîné ba moom mu nekk fa julli fajar ba pare booy mi soog a ñëw mu naan leen yéen xanaa bëgg leen daan Zarko di leen entraîné comme moom yow mobilisation boo xoolee li nga gis nga xam ne ñun pare nañu non no man du ma maye billet non bu yaay mais yow non yow ku dul maye billet dafa am man sama combat bii nii ñaata laa jënd billet 2 millions. xanaa dëgg loo xool say si signature yi sama bonne presse bi ma ne Ibrahima jaay ma billet 2 millions. non Dione si yow dama dama ko ma kenn nag maay xaar rek ba tey dañoo wéet ba tey. waaw mooy comme chaque fois rek mooy li ñu may wax loo nii woote. dëgg mais euh, normalement normalement Zarko war na ak statut ah, normalement ak statut bu ñu am nii war nañ mun a dépasser sax woote non mu ngi ñëw ko koy te normalement dans les normes Zarko warul sax toog di woo benn autorité biir Grand F warul toog di woo benn euh, footballeur biir Grand F parce que ñun li ñuy li ñu li ñu yàlla nattoo mooy bégal Grand parce que boo xoolee lii rek mbégte la waa Grand Yoff yëpp ay dajaloo jiital seen doom dem kafoore indi seen doom indi leen ndam kon loolu benn autorité warul xaar ñu ko ciy woo mhm. ñoom ñett dañoo dañoo war a participer te man duma ko sax yëg man dama war a toog rek dama war a toog rek ñu ñëw ne ma ah diw de moo moo moo jàppale lii fans club wala diw de moo jëndal population de Grand Yoff sans billet comprendre nga ñun foofu la ñu war a toll ak autorité parce que autorité yi nekk Grand Yoff Grand Yoff leen lépp Grand Yoff la ñu jàngee Grand Yoff la ñu footballé même pro yi Grand Yoff la ñu footballé defee lépp mm. kon doomu Grand Yoff bu jógee nañuy jóg ñoom tamit dañ ciy jàpp ci loolu rek xam nga dañ ciy lancé un appel solennel ak euh, suñu suñu délégué euh, euh, délégué de quartier ñu koy wax Père Abdou Diallo ñu koy nuyu moom aussi de passage di nga wax ne xam nga na wax ak autorités yi na wax ak Khalifa Sall na wax ak Boubacar Camara na wax ak na ñu ñëw di jàpp ci combat yi dañuy ñëw di dooleel population de Grand parce que ñun li ñu indi man Zarko li may indi Grand li may indiwaat Sénégal mooy fexe ba changer image yu Grand fexe ba changer étiquette bi ñuy teg ci deru Grand parce que Grand Yoff dëkku noble la Grand ay noble la fi dëkk kon donc du ñu mës a nangu ñun ñu koy ñun ñu ñu koy yàqal parce que euh, malgré yàlla may nañu suñu wax ñaari nit ñett dañ ko déglu kon donc bu ñuy wax ci Grand ak xol la ñuy waxee quoi donc autorité dañ leen nuyu dañ leen di sant rek di leen gërëm di leen ne nañ ñëw jàpp ci bés bi Boubacar Camara ah fii la dëkk tout près xalifa Sall fii tout près la dëkk xam nga Madiop tout près moom tamit n'est pas loin sorante kon donc ñoom seen bés la ñoom seexu kuyaate mhm. ñoom Diib Dundu Gis ñoom euh, euh, comment dirais-je euh, Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa kalaamu mhm. ñoom ñëpp ñu ngi woo ñëpp Ibrahima Fall di woo tamit Ibra Gueye DG Carrière Euh, euh, ak grand élage ñi ngi gërëm ñëpp grand papi borom HLM euh, Padois ñëpp bàyyiwuñu kenn daal képp koo xamante ni yaa ngi non eh, li may wax rek mooy que ni xam nga <laughs> yow bu dee bàyyi yow góor du yéen du góor bàyyi du ngeen ma bàyyi sama gars yi sama groupe. ñoom man ak ñoom ñoo far du loo xamante ne xam nga bëgg naa sax ay nit di ko xam. parce que dooley suuf la. comprendre nga xam nga nit yow waroo fësal sa lépp daal. mais man ñi ñi nga xamante ni parcelle waaye jàmm gën man ñëpp mooy bëggee. parce que man alalu àdduna laa. comprendre nga man waaw man ñëw ma fii pour di bëree wala di nit di ma seetaan di am stress wala dara. man may dem pour divertir comme ni comme ni ma koy defee ci football comprendre nga ci loolu rek dañuy dañuy sant waa jàmm bu baax a baax njal mit mi Siteu ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ni muy taxawoo ci xam fi yoon yi mu ñuy dugal ak lépp ba délégué ay nit ñu ñëw ci man ah, donc moom rek moom rek doy na <laughs> non combat bi doy non combat bi bi mu diisee dafa yàgg dama yaakaar ne ah. combat bi combat combat pimpi la non yow yow yow pimpi jàmbaar la te jàmbaar day bëgg jàmbaar dama ni la pimpi jàmbaar la te jàmbaar day bëgg jàmbaar yee looloo waral xama mu xam ni Zarko bi jàmbaar la dama koy jege jàppale ko dooleel ko du daw làqu yee sawaay man sama moroomu góor du ma tëkku may génn Sénégal. mais loolu lu tax sama moroomu góor. du ma tëkk du ma dama la sama moroomu góor du ma tëkku may génn Sénégal. man góor laa góor gu dëgër yee on euh, di ci loolu rek ci la ñuy ci la ñuy sante l'ensemble zone 7B onon bandiraɓe kalporaren euh, mi calmini on no feewi on jarama allah jarama min e euh, combat o yettima ha paari ko dimanche oɗo garowo ñagueɗe men allah dokku men victoire belɗo e dow cukalel nguel sama mbokk jaagoyi joolaay bambaraay séeréer yi baynunke yi xam nga ñëpp xeet yëpp bàyyiwuñu kenn di woon ak l'ensemble zone 7B ci làmb ji waa Arafat lew na doole gang gi gaal gi cité millionnaire FC Grand Yoff Bastos liberté un ba 20 1 euh, ba 6 parcelle 1 ba 26 ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn di woo waa jàmm gën Sicap Mbao Géejawaay Caaroy Pikine waa Gambi waa Gambi maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax Adja kontaan naa ci yow bu baax a baax ñoom am ñoom euh, Pa Assane sama papa ñoom grand Thié yéen ñëpp kontaan naa bu baax a baax ci dooleel bi euh, Alaaji Baabu kontaan naa bu baax a baax ci yow ah bëggee taalibe borom daaru bi borom Gàmbi sek ah borom restaurant sénégalais au Gàmbi ñi ngi kontaan bu baax a baax borom benn bët bi nag ah xam na boppam moom jarul sax may wax yaa ma gën a xam kenn du la wax sëñ Galas sëñ eh, sëñ Abdou Galas bu Daaru Salaam ñi kontaan bu baax a baax ci nim ñuy taxawoo nim ñuy jàppale di eh, sant Gàmbi yëpp bàyyiwuñu kenn di rawatina waa Koungheul